Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, bokki jullit yi bokki taaliba yi euh, tey jii ñoo ngi fii ci kanamu imaam Serigne Yafi Bousso mi nga xam ne mooy jawriñu daayira Muxaddamaatul Xidma ginnaaw bi ñu jiitalee ci siyaar bi Serigne Touba Cheikh mun taxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér tey mbooloo mi toog ñu ngi bàyyi ko ba Burkina Faso Burkina Faso bokk ci réew yi nga xam ne ñu ngi ci wetu Afrique Euh, ànd ak seen jëwriñ ji nga xam ne tey ñu koy wax sëriñ Bamba Seck ak sëriñ sëriñ Jaga Caam ak ak sëriñ Silla ñu sëriñ Ibrahima Silla ñu teewal fi mbooloo mépp euh, jataay bi tam di ko waral mooy dañoo indi liggéey boo xam ne ñoom ñoo ko dajale foofee ci Burkina Faso indi ko ngir mu jëm ci liggéeyub sëriñ tubaab bi nga xam ne day daayira Muxaddamaatul Xidma mi ngi koy taxawul sëñ bi ci jumaa ji muy seen addee ji nga xam ne dafa jëm ci addee ji nga xam ne moom la daayira bi di taxawoo liggéey bi muy ci entretien bi ak lépp lu aju ci biir jumaa ji euh, sunu xel dal ci lool nag sunu yaakaar dolli ko ci euh, ndax sëñ Bamba Seck mii moom mooy ki njëkk a ko woon ak ñun yaakaar naa boobaag lay wanaa toll ci ñetti at ñëw fii ci ak ak fajar euh, ñu jëlli suba ba noppi mu laaj lu liggéey bi ci kanamu sëñ Afia ci lañ ma jot téléphone ma ñëw fii ci ci ci ci ci jumaa ji fekk ko fa ñu dem ci bureau bi bañ eggee tam jotoon nañ koo jox sax Euh, euh, euh, bologi carte yi àndoon na ko ñu wax sëñ Mour Gueye nekk fële ca Gana ci loolu itam li tax ñu indi ko mooy pas-pas bi ak pasteef bi nga xam ne moom gis na jumaa ji ñi ci ñi ci biir jumaa ji liggéey bi nga xam ne ñu koy liggéeyal sëñ Touba ca la ma wax ne ma sëñ Assane day Touba Togo day Touba kii Touba Burkina Faso ay taalibey sëñ Touba ngi fi yoo xam ne day bépp liggéey boo xam ne day bu jëm ci sëñ Touba day euh, te te mu leer ci ñoom danañ ci liggéeyal sëñ Touba man nag euh, da may damay damay damay damay damay jóge fii bu ma demee ba egg leeral ko mbooloo mi leeral ko jëwriñ sëriñ Touba yi waaye tey jii nag leeral lam leen doon leeral am na firnde ndax liggéeyal nañ sëriñ Touba dajale nañ fi juróom fukki junne indi nañ ko fii teg ko ci loxol sëriñ yaa bu sa imaam kon daal sëñ Bamba xam naa ñu bañ a euh, guddal euh, ñu jox la kàddu yi rek ñoo ngi jaajëfal ñëpp nag waaw di di di di di di leen jaajëfal bu baax ci taxawaay yi waaw ndax lii moom euh, sëñ bi Abdou Khadir waxoon na ko barki démb liggéey bi moom bari la taxoon nga liggéey ci bëgg liggéey taxoon nga liggéey ci Sëriñ Tuubaa rek moo lay tànn liggéey loola ci waaw kon nag ne rafet jot ne xam ne lii moom dal na xel bu baax a baax a baax waaw bisimilah. maa ngi sant sëñ Tuubaa sant yonante bi sant seen Tuuba sant sama ñaari waajur sant jàbbat seen Tuuba yëpp sant taalibe yi maa ngi leen sant bu baax ci ni ngeen jàppee ci liggéey bi waaw maa ngi ñaan seen bi mu ñaan ñu am xewal bu bari waaw waa Burkina ñu am Pastef lañu soo xoolee suñu lim bi ak yeneen dëkk yi barewuñu mais ñu ngi jot a dajale depuis suñu waajur mën naa ni sabab yëpp suñu waajur yi ñoo teg ci yoon lislaam teg nu ci yoon liggéey seen Tuuba waaw ñoom ñoo fi mas a génn kër seen Tuuba xamal nu seen Tuuba kon du leen fàtte waajur yi jiitu yëpp nga fasale leen bu baax ci waxtu bu ne bay julli nga fasale leen ñu nekk bàq ak suufu Touba yëpp ak suufu àdduna bi ak ñi fi nekk yàlla wërë wërë seen cër guddal seen fan jox doom yi ay xéwal ñu mën di toppatoo di mën di yëngu ci liggéey seen Touba bi waaw liggéey jumaa ji daal ñu fexe yëngatu bu baax waaw mën naa ne jël benn bi moo nekk nii mais soo yàlla am na taalibe yi fi nekk sax ñi comme gis nañu lii incha allah suñu delloo di gën a yokkaat suñu seen pastif waaw comme li ma ko li mi bariwut mais pastif bi mi ngi fi waaw nga ñaan xewal yeeg joxe seen tuba xol joxe seen tuba am nañu ko kon soo ñaanalee xewal yi gën a yokk rek yi fi gën a yokk jërëjëf jërëjëf ma passé jëruñu daayira seen Basiru seen jagat ci am seen day kaddu asalaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax di la dox sa wàccuwaay di la nuyu ci turu Touba Ouagadougou yëpp ñu àndal ak ñañ fa bàyyi ñëpp ànd ak sëñ Mour Bamba Seck mi nga xam ne moo jiite liggéey Moukhaddamatoul Khidma fii ak bi Sëriñ Tuubaa yi àndal yëpp di muy suñu tàmbali Mbàkke nga ñaanal ñu ba luñ def ren ñu def lu ko dubal ci déwén ci kàttanu yàlla te fekk la fi jox la ko ci barke Sëriñ Tuubaa wax ji nag mënu woon ko waaye nu ngi ñaanal ñëpp daal ñu gën a fas fas moo waxee rek ay jàmbaara fa nekk ay jàmbaara fa nekk léegi Sëriñ Tuubaa ñu am yéene mu ñëpp am yéene nga ñaanal ci réew ma nag ndax réew ma daa bëri yëngu-yëngu lool ndax fu waay nekk dafa ñaan jàmm ndax boo amee jàmm nga am jàmm ndax bari ni fay xew waaye nga ñaanal fa réew am fa nit ñi dafa nekk ñëpp am jàmm sëñ Tuubaa baax sëñ Ibrahima Sile moo jiite kuréel daay waga dugg ba moo ñam bokkal wax mu asalaamaaleykum sëñ bi bu so ñoo ngi lay ñaan suñu borom defal la jàmm ak tawfeex guddal saw fa ñu yàgg la fee fekk di la jébbal liggéey sëñ bi liggéeyu sëñ bi ñu la dénk suñu borom defal la ci ndam lu rëy ci barke sëñ Muntaxa Basiir di la ñaan nga ñaanal ñu liggéey sëñ bi nga xam dañ ci soog a tàbbi ñoom ci ndam lu rëy ndax dañ koo bëgg a dolli ci bunt yu ñuy liggéey sëñ Tuubaa ndax liggéey sëñ Tuubaa moom bu àgg bii gën dara gënu ko àgg ndax sëñ Tuubaa amul lu dul jumaayam ci kon képp koo xam ne nii dangay yëngu jëm ci jumaay sëñ Tuubaa yi dañ laa war a ñaanal nga gudd fan ñun taalibe yi fa nekk nag bëgg nañ nga ñaanal bu baax ñu am jàmm ba mën a liggéey sëñ ci jumaa ji ji dolli ko ci liggéey bi ñu liggéey sañ Tuubaa waaw ñoo ngi lay ñoo ngi ziar bu baax ñaan suñ boroom defal la jàmm ak tawféex guddal saw fan wéral say cër ndax euh, lii nii leeraay gi ñu am amuñu ko ci woon bu ñu ciy tàbbi waaye bu ñu delloo dinañ gën a xam nañ ci liggéeyee ndax yoon wu njëkk la woon xamuñu woon ndax da ngay gis nit mu yoru karne rek doo xam lu carnet carnet woo même boo ci dee def ngir jëmmi sëñ Tuubaa dina am loo xam ni da nga ko ci réserve waaye comme sëñ Tuubaa dimbali nañu ba ñëw ba gis la ba mu tàbbi ci say loxo bu soobee borom Tuubaa bu ñu fi dellusiwaatee da nga xam ne ñaan gi nangu na jërëjëf bu soo ñu ngi ziar bu baax. jërëjëf sëñ Ibrahima. xam naa kon loolu rek leeraay boobu ñu gën koo leeral xam na sëñ Ibrahima sekk mi moom mooy jëwriñu daayira Muxaddamaatul Xidma euh, lépp lu mu leen ci wax rek xamal leen ne loolu moom ndigal la ndax moo fi ñëwoon ne da koy da ci da koy jël yóbbu ko ci daayira bi waxtaan ak daayira bi daayira bi nag bu ñu demee ba reconnaître loolu ba samp ko tam kon loolu tam moom rek mooy ndigalal daayira bi euh, daayira bi tam danañ ci indi tuuti ak leeral ndax réew yi moom bare nañ lool waaye réew Afrique yi tam taxagul mu yaatu fa euh, message bi dem na fu bare bari waaye lu mel ne Côte d'Ivoire ak Mali ak fu mel ne maanaam Nigeria euh, ñooñu moom ñooy ñi nga xam ne waxtu wu ci ne seen i jëf mi ngi ñëw. Euh, am na tam benn benn yu indi seen addiya lu mel ne Togo moom ñëwoon na fi euh, lu mel ne Togo ñëwoon na fi ak lu mel ne Ghana ñooñu tam ñëwoon nañ fi boobu ba léegi tam ñoo ngi leen di séentu waaye tam noonu lañ tàllee la suñ loxo ci réew yi Afrique yëpp ak Europe ak Asie fu waay ne ci bitim réew rek moom woo nañ la ci liggéey ndax liggéey sëñ la waaye nag du tey ñu ñuy wéyaale nag képp koo xam ne sëñ liggéey liggéeyloo na la ci rek da nga ci tàbbi waaw su ko defee tam li daayira bi di taxawu euh, leeraloon nañ ko fi daayira bi ñoom ñoo yor margo bi ci armeel yi ñoo yor baqiya daayira bi te mooy taxawu koor gi koor gi ku xool gis ne ndogu yi lu toll ci ñeenti junni doomu aadama ñoo fi doge nga xam ne ay juróom fukki million nangam yu jëm kaw te loolu lépp rek ci li fi taalibey sëñ Tuubaa ji indi lañ ciy delloo lu mel ne màggal gi leeral nañ ko barki démb lu ëpp junni nit lañ fi daayira bi indi daayira bi yor seen lépp daayira bi tamit day taxawu social bu mag ci biir jumaa ji ndax fu mbooloo mu takku di liggéey eh, ñi fi nekk dañuy am yaram yu sutaat ak yëpp te loolu daayira bi moo koy taxawu daayira bi tamit mooy taxaw lépp loo xam ne entretien la ci biir jumaa ji luñ fi war a def kon nag loolu liggéey boobu lépp lu ci waay indi ci foofu lañ la koy dellool te eh, yaakaar naa liggéeyal sëñ bi moom fépp la baaxe waaye fii nag moom dafay gënee moom muy fii ci jumaam ji kon nag yàlla na leen yàlla defal am ngatandu ba yéene ji bu ko defee ngeen ngeen ngeen ngeen yàlla mottali leen ko ngeen yaatal ko woowaat ci réew yi Afrique yi nga xam ne ñoo ngi koy dégg te ak seegun ñoom ñëpp itam ñoo ngi leen ci woo kon ñu jëbbal sëñ Afia bu sal imaam euh, kàddu gi mu ñëw ni asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu bu baax ak ci turu mboolem membre yi daal ci Moukhaddamatoul Khidma suñu asan seen kàddu ci lii bi mi lépp yàlla dogal ni ko suñu asan waxee bi sëñ bi ñëwee suñ Balla Seck suñ Bamba Seck xam nga mu xamam liggéey bi tax mu tàbbi ci yéen itam ñam tàbbi suñ tool yi mu nekkal fa yëpp itam tàbbal ci di def seen yàq muy loo xam ni tawféex la ndax jumaa ji moom ni ko si mbokk mi waxee léegi bak see liggéey taxul nga liggéey ndax seenu añ sëriñ Tuubaa dañ koo faggul bañ ko daal tàmbali te boobu jumaa ji sax taxawagut bay ñaan suma moom jéggal mboolem ñu ci yëngu ak ña doon ko digal boobu ci ma dul fa sëy ni boobu xam ko jumaa ji taxawam dit moom mi neexi bari rek ak ña ñoom ubbi seeni gis ñoo ko gisoon booba la leen faggu la ñoom seenu añ kon añ la boo xam ne kuñ ci woor kuñ ci woor gaa ci ñëwaat ci comme neex nga ñëw ci kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu buñ ci yàlla boole noonu boo leen ji itam boole ci boole leen boole ci yéen itam ñu xam ne rek ni ko suñu asan waxee dayal la boo xam ne li mu taxawee lu yaatu la ndax ba muy tam li moom xëy na bale rek moo nekkoon jumaa ji rek moo nekkoon liggéeyam waaye suñ sari moo ci dolli yu bari yu baree bari rek moo ci dolli ba mujj mu jàppale moom lu ne dëkk bi rek daara bi mën na koo mën na koo mën na koo saytu da ci ma si kilim damay wax ma lu ma si dégg ci damay wax ne ma dama nga toppatoo ma loolu ba xam noonu demee ngir jàpp ne daara mu mujj sax ne dafa bëggoon ay membres yoo xam ne day féete ci gërëm <laughs> ngir di ko nga gis nañu lenqee lenqeente ak gis na tamit seen pëste ba bi fi jógee booba am nañ membre yoo xam ne boo kër suñu ba la ñuy xëy ndax moo ci boole penc mi boole ci julli éri boole ci morgue bi boole ci koor gi yëpp ci xalaat ci xalaatu hmm. wax dëgg yàlla dis na si mu nekk bu nekk da rafetlu liggéey bi loolu ci say xalaat yi itam ak sa ak sa xalaat boole ci li yoroon ba Cheikh Mountakha mi moom maa war ci woon naka yekk ba daari soob rek maa war ci moom di ci taxawee lu ñu mës a am ay lëj-lëj dañuy dem ba ci ñu waxtaan ci moom bu jëlee soldat la mu lay jël soldat mu ànd ak moom moom boobu mooy moom moo gën a xam ñëpp moom kon nag maa mm, ngi wax ne daal xam la gudd fees dara du fi ndax yi mu teg kan moom dafa bari lool yi mu dafa bari lool euh, te ci doxe ci doxe bàyyi ko ci taal bi rek la ci yaakaar ñi nga am yaakaar kon ñu ngi leen di dollee talal loxo rek. di wax ne liggéey baa ngoog fii daal moom lépp lu fi dugg loola moom dugg na ci tabe ci sëñ bi ndax fenn fu muy jëm feesul jumaa ji du am kon yàlla su moom dëgër ñu ngi am yaakaar ci yaakaar seen tàmbali bii ndax ni mu dëgëree yaakaar nañ ci lool ne dana jëm tax kanam bu baax a baax démb laa koy wax sëñ bi naa ko magal gi de tubarkala lépp dox na waaye murid yëpp mur gi daal dara taxawul lépp nag sa taxawaay ak sa pëstéef waaye na nga xam ne nag mur yi itam taxaw nañ tam fees dal ak pëstéef du du seen ndigal loo jox rek ñu de man man de sama sama sama yéene ma ko li ma yéene ñaan lépp maa ànd koo génn. waaw alhamdulilah waaw maa ko ni ma ko taal ni ma ko taal di wax ne murid moom li ko jig mooy wér ak yor comme da ngaa war a war a ñuqi ku ñàq da ngaa war a wér ku ñuqi da war a wér loo ñuqi kon nag ñaanal taal bi yëpp mun dafa leen ci loolu mooy loolu borom a koy def waaw <laughs> parce suñu taal tax ñu liggéey moom moo war moo war loolu kon nag alhamdulilah kon naa ñu ngi doolee sant ñëpp ñi teew ñu ngi tëgg kon ñi teew ñi ngi tëgg suñu nuyoo ak suñu sant ak suñu ziar ci seen loxo di ko àggalilu ba ca mbooloo bépp daal xaman daayira bi moom ki tàbbi démb ki tàbbi tey ak ñëpp ci am ku dikk rek dal nga ànd liggéey bi yaa ngi ci biir xalaat boo ci am itam boo ko joxee nañ ko set lépp lu ci waay bëgg a leer jox ko suñu mii ak foo mën di nekk loo mën loo ci daayira bi rek moom dan la ko leeral bu dee loo bëggoon a indi te mu te mënoo ko itam bu jaaree ci loxoom dana ñëw ba ci man mu jox ma ko wax man ko war a jox ma ne ma kooku ma woo ko kon moom tàkk yu leer ci liggéey waaye tam ñu ngi koy doolee waaye tam sant bu baax a baax ñaan suñu defoon toog feex dafa ni ndimbal sëñ bi féetunu fa ci barke ba Tuuba jërë ngeen jëf jërëjëf xam naa kàddu yooyu rek mooy sëñ Afi indi woon jërë ngeen jottali ko cant ngërëm rek ci mbooloo mi te it ñu gën a fëddaliwaat suñu laxasaay rek duñ fàtte itam waa Gabon yi ku mel ne Cheikh Mbengue Baye Fall ak sëñ Badou Sène ñoom itam ñu jàpp ci liggéey bi lañ comme noonu ñu ko waxee daal euh, mais euh, ngeen yaatal ko ba képp koo xam ne yaa ngi ci biti Afrique tamit moom ñu xam ne mu bokk nga ci ñiñ woo biir réew bitim réew kon nag yàlla na yàlla yokk tawféex yi bu baax a baax waaw jërë ngeen jëfati yàlla nañ fi teew ay déwén i déwén ci barke Seexul Xadim